fas yéene ñëw faram-fàcce buntub bi di buntub ñeenteel bi lan la wëndu ci li mu wax ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa chapitre tey bi nag dafay wax ci fi mawlidihi ci juddoom comme ni ñu leen ko annoncé woon ci jotaayu démb bi ci ñetteelu chapitre bi imaam Busayri mu ne abaana mawliduhu an tiibi unsurihi yaa tiiba mubtada'in minhu wa muxtatamin mu ne abaana feeñal na biiral na mawliduhu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an tiibi unsurihi ci teeyaayu cosaanam mu ne yaa tiiba mubtada'in man dey mu na ci sellaayub aji tàmbali ak aju mottali moom seyduna muhammad moom la ko abu bakri ni xaritam ba waxoon mu yenent bi faatoo mu tiim ko naaw ne ko tibta xayyan wa tibta mayitan ya rasulallah ne ko ndeysaan bi ngay ñëw sell nga waaye bi ngay dem sell nga day itam moo tax yow mun li xew-xew bis boobu juddu yonent bi li mu njëkk a feeñal nee na mun bis la boo xam ni tafarrasa njort na fii ca bis ba alfurs muy les Perses annahumu naka ñoom de xat unziru informé nañ leen bi xululil bu si ci loraange bi wàcc ñoom woon ñu xam ne ak ay mbugal maanaam les Perses juddu yonent bi taxoon na parce que Perses yi ñoom dañu nekkoon empire bu rëy rëy amoon doole lool waaye li doon renverser seen nguur mooy judd yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye wa iwaanu Kisra pale Kisra ba itam fanaan na moom mujj na wa huwa munsadirun nekk aji li nga xam ne moom mooy aji daanu rot ka chamli asxaabi kisra comme ni nga xam ni noonu la soldat yi buur boobu di kisra doon rote xayra multaimi nga xam ne dajaloo wuñu ndeysaan ñoom ñëpp mu ne mujj tasaar maanaam balcon yi nga xam ni moo nekkoon ca palais ba dem na ba yépp dafa écrasé wu ndax juddu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëgg moo fent ba dëgg bu feeñee neen dootu fa nekk mu ne ya ndax foofu la yam ci événement yi apparaître ci juddu yonent bi mu ne wannaaru safara si xaamidatul anfaasi dem na ba safara ba doon takk waaw ca pale ba safara ba dem na ba safara boo xam ne ay ati at la doon takk du fay des années safara ba mosul fay mu dem ba nekk patrimoine hmm? yonent bi juddu rek safara ba fay alayhi wa naar dex ba nga xamante ni moom mooy ni fleuve dex bi saahil ayni min sadabi dem na ba dex ga daal di niis ndax njàqare rek ndax yenent bi sallallahu alayhi wa moo war a ñëw daaneel ñoom ñëpp seen gouvernement mu ne wasaa a saawata nee na wasaa a naqarlu na saawata giir boobu ñuy wax waa saawata nan moo tax ñoom ñuy naqarlu an gadat buhayratuha seen fleuve bu lac bu lañu amoon di ko tiitaroo mu nekk seen patrimoine dem na ba niis wa rudda te delloof na waari duhaa ka doon dem di rooti lil xaysi bil xaysi ci ci mer tartaru mer xii na dami ca waxtu wa mu mare mu ne kañu yebaloon sax mu dem di root mu ne dem na ba dafa mujjee mer ndax ba mu demee fekk fa dara ndax dex ga dafa niis mu ne ka anna bi naar yi dafa mel ni safara sa ma bil maa i min balalin maanaam safara ba fa nekkoon di tàkk ndox ma moo ñëw jële fa safara si mu ne xusnan wa bil maa i maa bil naari min daramin maanaam opposition moo am safara bi dafa fekk ndox ma yóbbu ko mu mel ni ndox ma ak safara ba dafa fekk ndox ma daal di koy yóbbu li mu bëgg a wax moom mooy ne safara bi existeetul safara bañ doon taal di ko jaamu ba yenent bi génne àdduna juddu nekk liir doonagul yenent de daa juddu rek safara bañ doon jaamu jàppee ko yàlla safara ba daal di fay ndox ma nga xamante ni moom lañ doon barkeeloo naan ndox mi euh, mooy faj soxla mooy def ndox moomu ba yenent dafa niis sallallahu alayhi mu ne wal jinnu taxtifu foo mës a gis ku gane àdduna jinne yi di joxe information naan sangu jamono juddu na wal jinnu tahtifu moom la Seydi Xaaji Maalik wax ca xilaas mu ne wa qaala waylakumu yaa ummati qad xumilat fi haadihi durratun min axsani tuumi wa anna ranna laainu alxabu yaxduruhu junuuduhu wa huwa riadidun min assadami iblis yenent bi dañ dañ ëmb yenent bi rek ci bisu guddi àjjuma leylal arubati qad xalla durru fi rajabin summa almunaadi yunaadi musmiha alfahami Iblis woote réunion woo njabootam ne leen ñun toskere nañ ñun de perte nañ ndax yonent bi ëmb nañ ko guddi tey te boobu dañ ko ëmb rek juddoogul <laughs> ndeysaan jinne yi wal jinnu taxatifu baatu taxatifu ci la xaatif jóge muy téléphone ba téléphone ñooy arab yi xamuñu ni ñuy tuddee téléphone <laughs> ñu ne xaatif mooy luy wax ak yow doo ko doo ko gis loo tax baatu xaatif ñu koy wax téléphone ci arab tëxatifu ña ngay jooroo di joxante information yi dina yi naan sang bi sang bi sang bi mi ngi ñëw de wal anwaaru leeri saati atum jolli fépp ci àdduna bi yonent bi di juddu àdduna bi yëpp dafa mel ni projecteur dafa leer gi dafa jolli wër àdduna yëpp lépp leer ba mel ni làmp wal xaqu dëgg yazharu feeñ min maanan wa min kalimi ci maanaa mooy loo xamante ne lu ñu mënta gis la waaye wa min kalimin ak ci lu ñu wax lépp feeñ na amu nee na waaye nag ñoom gumba nañu wasamu tax nañu fa ilaanul bachairi ñi doon yëgle di annoncer l'avènement du prophète sidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ci bari lam tusma ñu gaa yi fañ doon waxee di joxe annonce bi parce que am na ñoo xam ne gëmuñu ko woon wa baariqalul injaari lam tusabi waaye melxatu avertissement xupp bi ñu leen doon xupp di leen wax ni leen kii ñëw renverser seen nguur xam nga liir bi juddu tey nga gis benn nguur bu am doole bu fa nekk ñu ne la kii juddu tey tey ma war a renverser sa nguur bi xam nga doo ko mën a nangu loolu moom moo leen dalal mu ni min di ma axbaral aqwaamu kaahinahu waaye tamit seen gisaanekat yi ginnaaw bi nga xam ne ñoom seen gisaanekat yi charlatan yi ñoo leen wax ne leen ah bi anna diinahumul muwajj lam yaqumi de ña dañ dem ci seen gisaanekat yi muy charlatan yi ñu ne leen ah waaye boo nag pexe amul de suñu diine ji moom jeex na ndax diine bii di ñëw mooy folli diine yëpp ndax mooy diine mujj ci diine yi parce que jàngoon nañ ko seen téere yi <laughs> jàngoon nañ ko ci tawraat jàng ko ci injiil jàngoon nañ ko ci tawraat jàng ko ci évangile wane ni diine bi mujj ci diine yi mooy lislaam yonent bi mujj ci yonent yi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu seen gisaanekat yi ñoom ñoo dañ ko feeñal wa baada ma aayanu fi l ufqi min shuhubin waaye ñoom bi ñu jànkoontelee ci gox yi min shuhubin jinne yi xam nga jinne yi dañ doon dem ci asamaan di jëlee information di ñëw di ko jox temps yi muy njabarkat yi gisaanekat yi jinne yi ñoo doon dem asamaan bu yàlla di wax malaaka yi pour jox leen instruction ñu wàccee ko jox ko yonent yi balaa information bi di wàcc jinne yi jël ko dem jiitu di ko jox charlatan yi naan nañ am na lu ñu xam léegi yàlla nag yonent bi saa salaam bi mu juddoo la yàlla tëj goxu asamaan yëpp jinne yi amatuñ fu ñu mën a pénétrer di jëli ci information moom la ñuy wax ci suuratul jinn qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna wala nushrika bi rabbina ahada ci lañ demee ba na ko anna kunna naqudu minha maqaida lissama wa man yajid an yastami lahu shihaban rashada ñu wax ne léegi dañ doon bootante di bootante dem ba asamaan di déglu ji information ñoom jinne yi waaye ba yenent bi juddoo la yàlla ut ay missile ay jum samp ko ci asamaan yi yi nekk ay biddéew bu jinne yi yéegatee bay bootante rek yooyu nekk ay explosif génn di leen jam moo tax ñoom jinne yi mënatuñu am accès ci asal nee na moo tax bi ñu demee ci gox ya mun xaddatin nga xamante ni biddiw yi fàq jum yooyu di fàq di leen def ay flèche mel ni ay ay fusil di leen jam nee na moo tax ñoom mënatuñ fa ñuy wadd ba mel ni ay xërëm yu ñu daaneel xatta gada an tariqil wax yi munhazim nga xamante ni dem nañ ba mujj ci yoonu wax yu boobu mun hasimun wax yi ba mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ak diineem yàlla yónni ko officiellement bi mu amee 40 ans nee na nag wax yu bi dafa mel daf leen écrasé mina shayatin ci seytaane yi yaqufu nga gis ñoom daw bi ñu doon daw ithra mun hasimin mu mel ni trasu koo xamante ni maanaam mbooloo mu ñu dàq ji ëpp leen doole ba ñuy daw daw yu metti ñuy daw mooy ithra mun hasimin jinne yi ñoom noonu la ñu mujjee ñoom kon xam nga Seydina Muhammad yàq na seen programme ñoom jinne yi ka annahum nee na jinne yi ba fisi yi di jóge asamaan di leen dàq ji di leen attaqué xam nga comme nan la meloon nee na ka annahum haraban dafa mel ni woon Abraha bi mu ñëwee jóge fële Éthiopie ne day daanali kaaba gi ba yàlla wàccee alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil parce que dafa tabax dafa gis kaaba gi mu ne moom kaaba gi daal war waruñu di fa dem di fa jaamu yàlla ndax li muy générer économiquement daf ko déranger te moom buur la bu am doole am na xaalis mu tabax pale bu rafet pale ba sax amaana moo dàq kaaba gi ci ci ci gisin waaye kenn demu fa loolu metti ko mu jóg ne day daaneel kaaba gi bi demee di ko daaneel nag ba picc yi yàlla xoolal ay ñay la yoroon de ay ñay la indi woon pour daaneel kaaba gi mais yàlla ci xekmaam yàlla ne du ma jël ñay sax di ko opposé dama indi lu yàlla dem jëli picc moom la yàlla di wax ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam tara kayfa xanaa gisuloo faala rabbuka ni sa borom def bi ashaabil fiil yi ci gaa yi yoroon ñay ya lan demoon ne dañuy daaneel bi alam yaj'al fi tadlil wa arsala alayhim taaran ababil tarmihim bi xijaaratin min sijil fa ja'alahum ka'sin makuul ay picc ñëw écrasé ay ponkal yu toll noonu ay xeer jëlee ko safara dañ koy sànni xeer yooyu écrasé la nit ñi daw yi gars yi doon daw ponkalu abraha yooyu ak ñey yi fëx googu ñu doon fëx mu ne seytaane yi ba leen jum yi di jël ci asamaan fusil yooyu di leen dàq ji ñoom seytaane yi doon bootante di jël déglu ji ay information ci kaw nee na noonu la mel <laughs> ngeen baal ñu suñu mbokk journaliste yi dafa mel ni rek ci manifestation yi bu leen gars yi dóoree lacrymogène yi <laughs> force de l'ordre yi bàyyi leen sama gars yi ngeen di dóor kii hmm? ñoom Cheikh hmm? dàq mooy mooy bu journaliste yi caméraman yi téye yi di daw daw googu ñuy daw <laughs> lacrymogène yi di leen dàq yi waaw jinne yi noonu lañ leen doon def ci asamaan waaw nee na nee na nabzan bihi baada tasbihin bi batnihima nabzal musabbihi min ahshari muttaqin nee sànni bi ñu leen doon sànni dafa mel ni yeneen yàlla Yunus bi ko jën bi wannee mu nekk ci biiru jën bi di sàbbaal lu am solo loolu laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ñaan bu am solo ngi noonu képp koo xam ne danga nekk ci ay xat-xat ñaan boobu saa ko ñaanee suñu borom dina teggi say nattu dina teggi say xat-xat laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin moom la yonent yàlla yunus doon sàbbaal waaye li tax mu génn ci jën ba zaayala bat na noonu te di xaaj maay waxati noonu nee na ci leeru yonent bi la génnee foofu waaye lam fa doon sàbbaar mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ba ko jën ba goqee ni mu ko goqee force boobu sànni bi mu ko sànni ba mu génn ci biir biiru jën boobu nee na gars yi jinne yi ñu doon dàq ci asamaan nee noonu la leen affaire yi doon dàqee kon mbokk yi loolu foofu la bunt bi yem ci ñeenteelu bunt bi di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi ah di leen wax ni rek ngeen wéyal seen topp ci programme Leral TV ñu fas yéene ànd ak yéen rek ci fii ba gàmmu gi incha allah di ci wettalikonte ak yéen waaye itam di woo ñi nga xam ni tamit ñu ko fàtte waa commercial nga xam ne ñoom ñuy sponsor yi ñu ñëw accompagner li nga xam ne moom may leeru bu bourde ndax itam day gën a yokk mbir mi rek waaw ndax fukki fan la fukki fan yi ñëw leen ngeen dugal ci euh, seen barkeelu ci yéen li nga xam ne yéenay soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, lépp lu ngeen am rek lu ngeen di fesal rek mën ngeen ko ci dugal mën ngeen ñëw incha allah ngeen jokkal ñu euh, ci incha allah service commercial bi ñu fas yéene rek wéyal li nga xam ne moom mooy liggéey bi asalaamualeykum wa rahmatullah